Sall la ci 2023 bii tay la tay nag la tay boo dégg dañ naan la suba la nettali ba dawal ci groupe bu soxna Mbodia Mbaye tay la tay bi xanaa lii na leen <laughs> ak 2023 bii ci kattanu yàlla ak mbaaxam léppay saasi ak Mbodia Mbaye fi la woo bi bëgg jeeg ji nga xam ni danoo doo xam siti nag nañ ma bàyyi xel ci vidéo bii eh a Mbaye xasewul de <laughs> ay waay Mbodia Mbaye day yeete daa am lu ma jooy tuuti ma bëgg ko jàllale eh jeeg bi nga xam ne tarkal la dangaa yor ndoxum siti mu jàpp say loxo jàpp say tànk dina sóoraale góor ñu ci sedd bi laa <laughs> ilaaha illallah am na góor ñoo xam ne ci biir néeg gi dañuy gàñña gàñña gàñña gàñña ba fooma nga leen di foowee dara lañ ci bëggatu ah loxo yi mel ni mat ndoxum siti bi jàpp ko ci sedd bii mu wow koŋ nga jàpp <laughs> jéeg bi bàyyil micro bi <laughs> bàyyil micro bi kat yaa ngi koy gaaw micro kat dara ba daa oyof am na noo koy nekkee tar kàll ak sa loxo bu dëgër bii di nga gaañ sa waay danañ bàyyi xel moo tax loxo jigéen war a nooy nepp loxoy jigéen dafa war a nooy nepp tarkal eh boo xamee dangaa doxum siti naanal reyal a nga tibb ci karité ji saa yoo ta di ni ko nii dégg ko diw karité du ko ci fanaana loxoy xaw a bàyyi waaye téere tarkal la ba ku xoole laa ilaaha illallah lépp tuy góor ñaa ngi souffrir de nit ma Mbodia Mbaye dafa am façon raay bu xam bu ñu koy raay ñun ci góom la di dëkk <laughs> góom fàttawaale ci jig ci góor ci micro micro tànkal la am na noo koy fawee dafay mitti da gaañ nit ki ci jàppin ba ca raay ba tànkal la am na sax fooy toll ba waaway ci micro bi sa bëñ yi mooy gaañ micro bi <laughs> ay Mbodia Mbaye mi tëggal sa bañ kii Mbodia Mbaye doo noppi waaye waay Mbodia Mbaye eh yow bu la kenn noppiloo de Mbodia Mbaye góor mi ngay wokk nii bu la noppiloo du baax de ndax vidéo yi ngay def tarkalla nag mi ngi wokk ñu ciy jariñu eh vidéo yaa ngi tax ne tarkalla ñuy feree new nag ci li ñuy def dee leen bàyyi xel bi dafa <laughs> est-ce que yéen a may dégg <laughs> loo war a way xam na nga cay way xam na koy teewe di ca way te boo cay way nga xam na koy wayee waaye jël say bëñ du ko ca xoos day dagg de góom lay doon te mi góor góomu mi góor neexut a faj <laughs> ay booja baax kañ ngay nuppi xanaa yow ma xiyam rek ba daat nuppi eh góomu mi góor yombut a faj te góom mi góor der bi dafa oyof dee leen xool ni ngeen ciy waaye tey xool ni ngeen koy aaye tey xool ni ngeen koy jàppee moo gën a sensible nag waaye téye ko rek mais ni koy xeex ni ko nit ki nii rek ñu ne déet waaye ngay raay du koy raxas di bomb rek mu naan la yaa ngi may gaañ yaa ngi may gaañ yaa ngi ko yaa ngi koy gaañ yaa ngi koy gaañ say loxo dafa wow loxo yi moo wow koŋ ku góor gi gaañ ñi nga defee ni siicu googu ma siicu siicu bànneex la déedéet mitit la dafa miti dafa miti de yaa ngi gaañ ko doo leen ci bàyyi xel te am na jigéen ñoo xam ne gis nga action ci biir néeg soo nekkee sa burum kër di ko bëgg a yegg feneen il faut ngay xool regard bi kanam gi <laughs> kanamu mitit ak kanamu bànneex dafa am bokkuñu kanamu mitit ak kanamu bànneex dafa am kanamu bànneex nga def ko ni regarde moi nit ko xool yëg ni tarkal kanamam gaa ngi billi muy neex ci moom nga xam ne kii téye ko ci kon waaye téye ko nii di ko xool kanam gi di jël jëli muy gañ ni nii nga defee ne fi nga jàpp papa baax na baaxul yaa ngi koy gaañ danañ ci bàyyi xel yéen jeeg am na jeeg dox du tële tarkala nit ñi palpé seen borom yi concentré rek fu nu ko jeexee baax na jeex dafa am yoon déwénte am yoon raay am yoon way ci micro bi am yoon dee leen sóoraale ba ñi <laughs> lii ngeen defe ne ni boo jàmbaay li ñuy wax ne jëgo ko ko dañ ma koo jooy ma di ko jàllale wallahi atim ay mboo jàmbaay ay mboo jàmbaay li ngay wax yow li mu di lii neex na de li ngay wax doy na waar de damaa jommi man mi di ko wax sax di damaa jommi jommeet ay jàngoro yu nekk ci biir néegi barki Sëriñ Bamba walay azim ku yaakaar ne lii may wax ay naxe kese la wala lii may wax tarkal la waxi ku bon la wala tarkal la Mbodia Mbaye dafa vulgaire Mbodia Mbaye dafa caga Mbodia Mbaye li muy wax dara baaxu ci réer nga Mbodia Mbaye neex na la seetaan la neexu la zappeel yow mi seetaan Mbodia mu caga yaa gën a caga Mbodia dañu waxante dëgg nii toog di filaale di sànneeku toog nag ànd ak yàlla ak yonent bi ak sëriñ Bamba mi ma gëm ñu may jooy jàngoro ba koy jàllale fii bu ti ko tas si réew mi nag nee naa la ku ñemee dañ laa ah lu ne fàng kenn du ko jeex Mbodja Mbaye eh joxe gaa ngi ni kat ci dëkk bi da nga <laughs> ba <laughs> eh, sa noonu du nelaw ah a xam ni tarkal la nag fi góom nekk yaa koy wokk bam na ku teet ni fàng dij guy bu tëjul du am njariñ te tarkaal la jàngoro kenn du ko nëbb góor ñaa ngi souffrir ci biir néegi ndax seeni jabar xamuñu fu leen di yeggee dañ leen waxante dëgg dañu jël seen temps ci góor ñi waaye tey sab micro rek naa ngi faawoo say loxo wow koŋ ci bi nga xam sa léppay wow boo diwul sa léppay wow koŋ nga téye nag di raay muy gañe naan la yaa may gaañ te bu la ne yaa may gaañ am na góor ñoo xam boo nekkee ak ñoom duñ la bëgg a découragé loo ci dara danaa la booy yaa ngi ci de ça ça va moom kay baax na nii baax mu ngi neex fekk dara neexu fa fa ko jàpp baaxul boo bëggee xam dafa ne xoolal kanamam ni mu bellee xoolal kanamam regard bi ni muy doxee xoolal kanamam sa waay ni mu lay xoole di prier nii nga xam ne jàpp boo ko ci neex waaye neex booy gañ di gañ mel ku ni matt neexut di kon dee leen xool seen kanam yi borom kër su ngeen di way ci micro bi dee leen xool seen kanam yi borom kër yi su ngeen di nekk ci micro bi tarkaan la da ngeen xam ne nag tarkaal la deru micro bokk la deru yaram danañ ci bàyyi xel kat boo ja bàyyi nag lii muy wax mi ngi nii toog tarkaal la jàngoro juñ ma joore dama koy jàlle la ah. ci kàttanu yàlla ak baaxam kon jigéen ñi da bàyyi xel ci seen góor ñi ci seen borom kër yi dee leen ko sóoraal am na faa yu bari yoo xamante ni yéen ñu koy nekkee ci biir néegi sax bàyyiwu leen ci xel barke Sëriñ Bamba am na faa yoo xamante ni góor ñaa ngi am na faa yoo xam jigéen ñaa ngi koy dund ci biir néegi te yéen sax mënoo leen koo xam boo Mbaye di ko gëstu andi ko fii def ko vidéo tasar wasar ñëpp jot jàngoro ji faju kon jigéen ñi bàyyi leen xel ne deru micro ak deru yaram du benn baleen bu ngeen téye micro naa ngi faawoo ak moom boo ca nekkee di ko way say bañ di ko boros góomu micro dafa koy faje ban micro ak bor far nga koy ban médecin xanaa médecin bu góor ngay dem rek war na ko mën a fajal bu dee jigéen fu nekk muut muut fa amoo fooy jaar te foo jaar ñëw sa micro ñu fajal la ko daa góom di fu muy wéree balaa wér dina yàgg te di nga tooñ borom ndax dootu xam fan lay jaar ba utilisé ko kon nag danañ ngeen cee way danañ ci def ndànk bu ngeen koy raay seeni loxo wow danañ ko sóoraale waaye tee ni ñëpp rek taw taw a bàyyi nangu faa ak moom mu naan la yaa ngi may gaañ yaa ngi may gaañ nga ne ŋaññi nga ñaar rek sa yoon newu ci wala nga téye ko war cee a way dafa ne yaa ngi koy yaa ko téye ci point yi téye ko ci point yaa ngi gaañ ndax say bañ a koy gaañ say loxo nga koy gaañ kon na dinañ def attention ci micro góor ñi ni ngeen koy téye ak woy ba ngeen ca war a way ak na ngeen koy waye dinañ ci bàyyi xel eh <laughs> ay góor jàmbaay boo nuppee at da tukki bul noppi de deel wax de ndax fi bi nekk yaa koy raay ba mu neex dëgg du nekk kankoor kankoor yi gaa ngi nii toog di jéeg pire kan jéeg ñeme ma ak góor ñi di ma wax jàngoro yi ma di ko jàll lii laa def ak leneen